asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ndokkeel di leen ndokkeelaat tamit ci weeru safaru tedd wi ñu nekk waaye ci bis bu màgg bi ñu génn muy màggalu Cheikhul Xadim gi muy wax ni moom la woote ñépp ngir ñuy santale ko ci yàlla di ñaan suñu borom mu def ñu fekk ko at yu baree baree baree bari ànd ko ak suñuy kilifa rawat na cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahullahu wa raahu ak sëriñ Omar Bousso xafidahullahu wa raahu di ñëw rek directement ci thème bi nga xam te ni xëy na lu concerné euh, monde islam yi bépp la waaye lu concerné tamit turu suuf yooyu ci Sénégal ak ci biti Sénégal waaye lu concerné tamit yoonu murit euh, muy wax propos yi nga xam te nii Omar Diagne mi ngi ko doon wax fan yi te mu yàgg koo wax lool rawatina jëmee ko ci tarixa yi rawatina tarixa murit ba mu waxoon fi ay njombe yoo xam te ni xëy na tax na lu bari judduwaat ci ay wax yu mu waxoon ca ginnaaw ba ñëpp di ko mettitlu démb mu defaat beneen conférence di confirmer waat ay waxam confirmer gi nag mooy bi mu waxaatee waxut ci loola waaye dafa waxaat luy confirmer ni moom la mu lee moom la gëm ba tey balaa ñëw ci loolu dañuy ñëw ci euh, wax ci xam-xam ba pare ndax li mu wax mooy euh, suñu kilifa diine yi manees warees na leen a mën a critiquer warees na leen a mën a critiquer ku ci mel ni suñ Tuubaa ci misaal mu tëkkale leen sax ak Cheikh Anta te loolu sax xam naa moom mooy ñàkk xam-xam ndax ñoom ak Cheikh Anta bokkuñ sax maanaam dimension ci xam-xam bokkuñ dimension ci seen diggante ak yàlla doon Cheikh Anta Diop xëy na du ko du ko jam ni ku baax la waaye kenn ku nekk rek ku am na ko la gën a baax la preuve mooy Cheikh Anta Diop taalib Cheikh Xadim la woon wala boog taalib kenn ak njabootam la woon kon loolu moom di di ci leen comparer te sax même buñ bu bokkee jamono ñenn ci ñoom sax bokkuñ dimension ci xam-xam bokkuñ dimension ci seen diggante ak yàlla borom bi subhanahu wa taala fi may njëkk mooy dafa junj ci ay ay masail ilmiya ay masail yoo xam te ni masail xam-xam la mu wax ci mel ni lu bees la ci Sénégal te xamul ni loolu lu bees la ci ci charia islamique waaye loolu moom yaakaar naa moom moo ko lu bees la ci moom xëy na moo ko mujjee xam waaye nekkul loo xam lu bees la ci fiqh islami nekkul loo xam lu bees la tamit ci xam-xam yi muy wax ay ku dem ca plan planète Mars fooy jullee xibla amu faak nangam naam yooyu yëpp ay wax la yoo xam te ay tufóoliyaat la ay wax la yuy doo judd ci yoo xam te ni ñiy doo judd ci xam-xam ñoo koy waxtaane léegi ndax borom xam wax nañ ci ba wax ca luñ ca luñ ca war a def lu jëm ci wàllu sperme maye sperme ak single mother yi ñuy wax am américain yi dañuy ñëw dañuy man single mother laa dama bëgg a nekk single mother maam uma jëkkër waaye dama bëgg am doom yooyu ay masaayil la yoo xam te ni ñun ñi nekk foofu xam nañ ni moos ak ñi nekk fii sax xam nañ ni maanaam ay masaayil la yoo xam te ni léegi xale ya koy waxtaanee ci xam-xam xale yi ñoo koy waxtaanee ci xam-xam mag ñi moom fi ne li ñuy waxtaanee ci xam-xam mooy nan la ñuy àgg ci yàlla xam-xam boobu lañ jëm ñoom fi ne nii le concernant Serigne Touba radiyallahu anhu nafaana barakaatu fayta ridwaanihi Euh, li ma ci njëkk am mooy li tax ma ciy wax man li tax ma ciy wax mooy ni Serigne Touba kat dafa féetale woon sama maam Serigne Mbacke Bousso di cousin wam di mbokkam di ab taalibeem da ko da féetale woon lu jëm ci wàllu xam-xam lu jëm ci wàllu xam-xamu charia da koo féetale woon ba Serigne Mbacke Serigne Touba waxoon na ko ni ko mbaa duma leen wan ginnaaw diine lislaam di di gent suñ mbàkkee ni ko du mu sa am ndax dinaa ko def ab ñag ba mu ñagu ma toog ci bunt bi ku bëgg a yàq ma jéebaane la hmm. ku bokk ci kooka nag kon yaakaar naa war ngaa mën a wax ci diine lislaam waaye war ngaa mën a wax tamit ci maanaam Serigne Touba maanaam man fépp foo xam te ni offensé nañ fa lu jëm ci mbindum Serigne Touba mbaa ñu offensé fa Cheikhul Khadim rek man jàpp naa ni foofa war naa faa wax war naa faa leeral kon hmm. ndax foofu ma bokk moo tax moo fa bokkul woon sax Serigne Touba li mu liggéey rek maanaam dafa doy sëkk rawatina nag Sëñ Tuubaa mi mi nga xam ne mooy Sëñ Tuubaa mi ma xam xam ne mooy Sëñ Tuubaa mi murid yi xam taalibe yi xam ko hmm. euh, Sëñ Tuubaa nag di ko diingat ak bi wax ci moom sëriñ bi moom ku miin loolu la Sëñ Tuubaa ku miin ak diingat la hmm. ndax ba mu jógee rek dañ ko commencé diingat radiyallaahu anhu wa anhu yi ba mu jógee rek lañ ko commencé diingat hmm. ndax moom sax diingat yi agsi woon na ci moom ba mu xam ko xam nga ñu bari bu ñu leen di diingat duñ xam ne ñu leen diingat Sayyidatuna Aïcha bi ñu koy diingat ci biir hadiisul ifk yeex na koo xam lool sëriñ bi nag ba mu jógee bañ ko commencé diingat rek la déclaré ni man ka ñu ngi may diingat kon kooku yaakaar naa diingat dérangé wu ko euh, ndax nee na nee nañ man damaa dof dof moom yaakaar naa kuy diingat nit bàgg ci dof yaakaar naa fa la diingat mën a yem yonente yi sax alayhim salaatu wasalaam loolu lañu leen daan tuumaal buñ leen buñ bëggaa mos bëggaa mos a mucc ci ñoom dañ naan kii kat ab dof la yaa xaw mi laysa bii safaaxa gis nañ ko ci alxuraan yaa xaw mi laysa bii dolaala gis nañ ko tamit ci alxuraan karim kon jàppal ni kon diingat moom maam sëriñ bi da ko miin lool moom sëriñ Tuubaa bal sax diingat bokk na ci di ko gën a yëkkati naan nee nañ man damaa dof bañ nan ko demal dem ca buur ya xaaloo li yarkan li abwaabi salaatini wax na ca ni nee nañ xaaloo safihun nee nañ damaa doyadi damaa dof te boba ci ak njëlbeenam la booba waajuram mi ngi dund suñu Mor Sali booba mi ngi dund mu nekk ci biir kër gi di jàngale ay téere ay téere xam-xam waaye nam doon doxee tax nañu ni ah ahmadu mi kat wérut loola loola it bokk na ci ñiy tiwmaal nit di ko dingat di ko tuumaal ak ndof bokk na ci li li tax ñu koy def mooy psychologiquement ñu geer ak moom travailler ko ba moom du àggale mission mhm. moo tax yonent ñu tuumaal ko waaye bu ko tuumaal yàlla moo ñëw weddi ko wama saaxibukum bi majnuun waaw yàlla moo ñëw weddi tuuma yooyu kon li ma wax rek mooy Sëriñ Tuuba ku miin tuuma la mhm. ku miin tuuma la kon bu ko Omar Diagne tuumaale kon loolu du ñu déranger ñun mhm. waaye nag dana baax nag ñu leeral fen yim fen ak kàcc yim kàcc nga xamante nii ay wax la yoo xamante nii toujours mu koy wax jëme ko ci yoon ci dëgg mm-hmm. waaw kon moom wax na ne suñ tubaab du référence am koo xam ne du nag dañ ko war a bàyyi ñun ñi suñu référence ñun ñu ànd ak moom gëm ko topp ko góolu ko muy Seex Xaadim radiyallaahu taala eh, eh, maanaam eh, suñ tubaab ci boppam sax mën nañ sami moo njëkk ubbi buntu moo njëkk ubbi buntu wax ni yàlla maanaam ki nga xam ni dafa may xas ak bi ma saaga maanaam duma ko xas du ma ko saaga ndax man meññetu saaga amut ci man waaye nag maa ngi lay ñaan yow yàlla nga nooyal ab xolom ba réer googu ne ci moom ak mbon googu ne ci moom nga nooyal ab xolam ba mu fàtte loola jëm ci man ak lu baax ndax moom xam na ne ku jëm ci moom ak lu bon lu bon rek ngay am moo tax te yéenewul kenn lu bon tamit moo tax muy bëgg du suuf moom suñu tubaab muy ñaanal ki nga xam te ni dafa yor lu bon jëm ci moom waaye ba mu dee ba sës nag ba mu ba sës nag ci mumitu dem na bay ñaan naan yàlla nag ñii na nga leen rey kon la daloon yonente bi alayhi dal ay yonente yu bëree bëri dal na Serigne Touba kon kon dañuy wax ni kon maanaam ñàkk ñàkk tontu ab noon mooy bu fekkee benn yoon lay wax waaye Ibnu Usaymin dafay wax nee na baale ak ñàkk a moom mooy ki nga xam te ne dafay def benn yoon waaye kii continuer def toujours nag moom waree su ko baal nee na waree su ko baal dañ koo war a dañ koo war a maanaam yar dañ ko war kon eh, kuy sàkku xam-xam moom du bañ mukk ku ko ku ko ku ko diŋat mm-hmm. alors sëñ Touba radiallahu anhu ak mag ñi fi nekkoon yëpp ñu ñëwee ñoom dañoo transformé maanaam maanaam asafara dañoo transféré données yi am ñoom te lislaam indi leen ko mm-hmm. dañ ko transféré ci ñun indi ko kon ñoom waxuñu seen waxi bopp mm-hmm. sëñ Touba boo demee ci ay mu àllafaatam maanaam da ko xaaj ñaari xaaj yi jëm ci wàllu maanaam tagg ko xaaj ñaari xaaj yim ci yàlla yentiba sallam ko xaj ñaari xaj benn bi manam ay tagg la benn bi ay salawat ay julli ci yentiba sallam salatu salaatu sitta bi madhi sitta way bo demé ci walu xam xam-xam nak mom dañu indil xam-xamu sharia indi ñu xam-xamu aladi xam-xam yi nga xam moom ngay jëfandikoo pour man a ak xam-xamu sharia donc le la bëgg wax rek moy man bo bëggee bi nga mindum sëriñ bi kon man nga dem commencer di nga sharia islamiyya directement parce que sëriñ bi wul waxi boppam waaye wax sharia islamiyya ñu indil boo demee ci tasawur sixaar bi bi nga xam te mooy moom lañu dëkk jàng ci xam-xam maanaam xam-xam la fay wax jawharu nafis mu naweru sudur mu layeru sudur maxaaliqu niiraan masaalikul jinaan mawaahibul quddus maanaam téeréem yi mu taarif yépp radiyallahu anhu par exemple saytu riwaani ci xam-xam la jëm kon bu nee kon ñooñu seen mbind mi dañ ko war a indi di ko critiquer ak di ko di ko di ko xool li ci baaxul ñu indi ko dafa fa xamul waaye maanaam bu xamoon dana xam ni loolu critiqué mooy critiqué charia islamia critiqué seeni wax ñoom mooy critiqué charia islamia ndax xam-xam euh, suñu mbay ñaari xaaj la xam ñaari xaaj la euh, bi ci njëkk mooy xam-xam boo xam te ni science science la xam-xam boo xam ne science la mooy tabia bi nature bi science naturelle yi jëm ci géographie yi nga xam te ni ci nature bi lay jëm wala boog mu jëm ci biologie ولا مجمتي سيكولوجي ولا مجمتي جيوغرافي ولا مجمتي سوسيولوجي ولا يمن نون خم خم يوي خم خم لا يو خم تنيوم تي سياسه دي خم خم بحث لا رك ما خم خم كسر بو خم تي سياسه رك لا جيم يويو دا فا نونغو كريتيك باسكو بن خم بروم لا جي واخ تاي لي بو سوبا كاين واخ تي لي جانتو بي داي وور سوف سي سوف سي داي وور يو ييب اي خم خم لا يو خم تني اي خم خم لا يو خم تني يو نونغو كريتيك لا ام باين خم خم بو خم علم الشريعه لا علم الشريعه مو نغور كريتيك نقول كريتيك موي بل هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم مام يعني لين أي آية لا يخمن غير لا ما جح كبرهم خم خمي مي ترانسفير لين كوي ما نيا لم جدك موي ما نام لم موي آه، كن دويت بسمع آية من لول أي نيني يخم أي يفر لين يدون لولا جهل آية كن maam jéem a critiquer Serigne Touba par exemple mooy critiquer charia islamia ndax moom charia islamia dañu ñu indil waaw kon man bañu ma mu critiquer Serigne Touba tamit bañu ma mu critiquer ko waaye damaa bëgg comme nee na Serigne Touba day jóom nit kese day jóom ba koy tëkkaleeg Cheikh Anta Diop dama ah, bëgg mu wax ni fan la Serigne Touba jóom ñun nangu nañ nangu hmm. nañ nit la hmm. d' accord moom hmm. mi jàppe Serigne Touba nit d' accord nañ wàcc ba tolloo moom ci loolu nañ wàcc ba tolloo moom ci jàpp gi mu ko jàppee nit d' accord nit la bindina comme nit ni bindé légui yow Omar Diagne indi ñu njuumte tay serigne touba ñom lool kay c'est simple yomb na indi ñu njuumte bi nga xam tane mom la serigne touba juum radiyallahu anhu mo xam ci grammaire la mo xam ci bayan la mo xam ci maani la mo xam ci ilmul balagha la mo xam ci nahwu la mo xam ci fiqh la mo xam ci usul la mo xam ci qawaid la mo xam ci maqasid la mo xam ci xam-xam bu mën don xol ulumul sharia wala al ala indi ñu ni tomb kat serigne touba la fi wax amut bu ko defé bu boba nañ la mën a leeral ndax am na wala amul na su boobaa loolu nag dama la ko laaj ngir wàcc ak yow ba suufe ak yow waaye xam naa ni xamoo ko te mënoo ko ndax jàngoo amoo ay diplôme ay faux diplôme nga am di wër di kàcc di dajale ndax li tax mooy li tax mooy tey li tax ma la koy laaj nii mooy wàcc ak yow waaye yow xamoo ko sax far ndax yow koo xam te ni xamee woo sax alxawaarisme yi naan alxawaarisme alxawaarisme nga xam alxawaarismu ngay wax waaye xàmmewu alxawaarismi wala alxawaarismiya sax xàmmewoo ko ni ñu koy waxee yaakaar naa kooku moom daanaka wàcce wax ak moom ci xam-xam sax yow arab yi jub sa feroo yi sax ci arab far ku ferul ij ci arab nag yaakaar naa yow bu ñuy critiquer suñu tubaab waroo bokk ñu koy critiquer yow ndax suñu tubaab mi nga xam ne moom arab dafa wommatu jëm ci moom waaw arab dafa wommatu jëm ci moom far maam buy wax baati arab yi njëkkante bu nekk naan ko wax ma muy tànn ba ca gën a neex di ko waxee ndax moom la mu gëm mooy maanaam toujours buy wax dafa war a wax la gën a neex jëme ko ci yonent bi alayhi salaam yi nga xam ne mooy ab sangam kon mooy farixa xayrul mursali bi xattiya al muassali nee na maanaam sama sama mbind mi yonente bi sax da da da ciy am mbégte ndax dafa neex ci moom yonaa saam dafa sama mbind dafa neex ci moom ba ci am mbégte léegi am Omar Diagne ñëw bëgg ni léegi moom war nañoo ubbi bunt daal pour critiquer mbindum Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa nafaana barakaati yo faydi ridwaanihi comme li ma wax rek man man du ma ni Sëñ Tuubaa dafa am maasum la ab yonente la wax loolu du ma ko wax waaye nag yow comme da nga koy jàppee nit indi ñu maanaam juumte yim juum ci am bindam nee suñ Tuubaa lii lay juum te sawdu sixaar lii lay juum te sawdu subaan lii lay juum te nekk xalaat xaaj su boobaa nag ñun bu fekkee dëgg la ñu nangu ko dem xooli ko defaraat ko bu fekkee dëgg nag ah ñu ne ah du dëgg kon te du doon dëgg du musa doon dëgg ci àddina ndax suñ Tuubaa dafay nekkoon nag ay kàngam yoo xam te nii dafa ñëw nekk ndaw ci zahir ci seen biir waaye commencé di taalif ak di bind ak di jàngale ci kër baayam ay mag yu mag ay baayam ak i magam nekk fa ak moom mu dem ba moom ci bopp mu leen di jàngal mm-hmm. ba ay jàng ñi ko jàngal xaw yu ma jaxate kala authentifié ko wane ne maam kii léegi kat maa doonoon sab sëriñ waaye léegi yaay sama sëriñ mm-hmm. bind ko mu leer naññi te xaw ma jaxate kala maanaam dafa wommatu mujj gi maam mel ni ko bu sëriñ bi ci xam-xam mm-hmm. te pourtant moo doon jàngal sëriñ bi ne ko doon jàngal ñëpp wommatu mujj ci moom sëriñ bu sooyee mi nga xam ne manees na ni moo ko dalal wala boog jàngal na ko lu baree bari dem ba mujj moom ak njabootam moom suñu busa ba suñ tubaa képp la ci wóolu jébbal ko ñëpp da jox suñu seexu busa da jox suñu war busa suñu àlli busa jébbal ko ñëpp ñu nekk ay taalibam di jàng ci moom kon yaakaar naa kooku nit yi jamonoom moom duñ wax mukk ni maanaam am nañ njuumte da jamono léegi bërki démboo njaay lañ fi nekkoon di màggal téeméeri at yi fi Cheikhul Xadim jóge ak léegi mhm. boo seetloo sortem bi boko ko rek xamne amna lu ne ci ginnaw am na lu ne ci ginnaw sorti bi. parce que dafa melni magal giñ magal ñu màggal seigne touba yi xam xam-xam feeñ lu bari bari feeñ ma ngi féliciter ñu ko def centenaire bi. lolam moy tàngal ab xolam ba tax mu génn def sortie yi muy def mom da naka fu mourid fu yoonu mourid amé ndam rek manam ma ngi ca bu xeyé dana wax dana jéem indi lo xam day jaxassé wat day jaxassé wat mbir mi waaw manam fu yoonu mourid amé ndam rek lay indi légui nak Omar Diagne mom day wax ni tijaan la loolu lay wax mom parce que day wax di wax ni man Cheikh ibrahim Niass mooy sama sëriñ loolu lay faral di wax donte man gëm naa ni gëmul Cheikh Ibrahima Niass parce que bu ko gëmoon du wax wax yi muy wax waaye iftiraadan li tijaan la tey ah Seyd Hadji Malick mu baax ma de dafa nekkoon ak sëñ Mbàkke Bousso ci dëkk bu ñuy wax kax ca wetu Tiwaawoon ñuy waxtaan ci xam-xam ba sëñ Mbàkke Bousso yéem ko bam ni ah sëñ Mbàkke Bousso mii day ginnaaw moo wëlbatiku ak li mu xam dem top Serigne Touba ah kon na Serigne Touba mbir la kon Serigne Touba mbir la bu fekke ab tijaan ngam kon alaaji ma si hadji mali mu bax ma lii la seedal Serigne Touba bu fekke it Cheikh ibrahim yes nga gëm ni moy sa kilifa ndax wax nga ko kër ba ngay saaga murid ne Cheikh ibrahim yes mo la Cheikh ibrahim moy sama kilifa donte man gëm ay fen la deug du deug ay fen bu fekke moy sa kilifa ay lettre am mi ngi ni yo xam te nii waxuma la Serigne Touba waxuma Serigne Touba way sa mam serigne assane bu sa mi jur sama waajur jigéen mom la ko woon tu toujours ñi waxtan ñom la ci xam-xam bal sax bin na suñu mbàkk bi sax ay lettre yo xam ne dafa ci doon laaj ci ay maam mom Cheikh ibrahim yass suñu mbàkk diko ci leral diko jox na ayuhal Ibdul bar yow dom ji nga xamanteni ni ni lay ndamo yow ibrahim yass yow dom ji ni ndamo dom ji nga xamanteni top na ay wajuram kon yaaka na fofu mom bu bëggee jaaxase tarixa yi ci lay dugg na man tidiane la wala man Cheikh ibrahim yass laa gëm wala yu mel noonu waaye bu fekkee nag dafa bëgg nag attaquer dis l'islam mbaam bëgg attaquer yi nga xamanteni ay lobby yi ci ginaaw xaye na ñoo koy defloo bu boobaa nag mu ñëw sol mayen bubu imam mu sol mbubb salafiste wala mu sol mbubb moo xam dana mbubu kon Cheikh Isa Omar bi Diagne boo la mbubu yu bari la war amna mbubu mu tijaan amna mbubu mbubbum économiste neena ci ay fenam diplôme yi wax amna mbubu mu salafiste amna mbubu mbubbum politicien mbubu yoy yep nak bu ci nek da koy sol rek ngir meuna a fen ak ngir meuna attaquer waye nekul lo loo xam te ni dëgg la ci mom lool rek makoy koy kon lool la kilifa yi seede ci Serigne Touba kon kon yow yaay wax ni seigne Touba mayees naa critique am bindum waye ñaga yaakar ñom ñoom dañoo rafetlu bindum seigne Touba dañoo rafetlu am jangale njàngaleem dañoo rafetlu aw yoonam rafetlu ay jaar jaar ak yi nga xam ci la jaar tamit lay nak euh seigne Touba bo demé ci naxu nga xamni ni grammaire arabe ñëpp xam nañ mo gëna a jafe ci grammaire yi am ci ad ñepp yëpp ndax arabe moom mooy langue bi gëna a jafe xëy sax jafe gi mu jafe motax yàlla tan diine l'islam wàcce ci alcorane karim suñu laa nee na waxuma la sax maanaam xam-xamu fiq wala yu mel noonu mais ay naxoo yooyu sax suñ borom daf ma koo tàggatal ad naxwu wala arudu wal bayaan musulibat wali bihi ayaan maanaam dañ naa kumpa naxu ak arud ak bayaan su may wax samay wax boo seetloo loolu lu wér a wér la ndax boo seetloo ay waxam maam ay waxam boo xoolee neex gi muy neex nga xam te ni maam day mel ni ki koy wax da koo xalaat ay ati at doog koo wax te fi mu toll la wax waaw fi mu door la wax la ma waxoon man Thierno ko fa ma ko waxee moom ku fa nekkoon ci condition yi ma nekkoon loo fa jëlee ngay wax waaye doo di tagg sama sang bu seen ahbabtu rabbil alamin xoolal yooyu yan mooluhaa yi bilaa manaa wax yu neex yoo xam te ni maam yow koy dégg boo dee am naar sax nga naan lii tey laa ko mos a dégg nga naan lii tey laa ko mos a dégg yaa mukrima dayfi jaaran kaana ma xadimi abla maanaam boo grammaire boo xoolee na muy neexee boo xoolee fiq fiq ba cay nekk na muy neexee bu fekkee ci fiq la maanaam bu fekk bu fekk adab ba adab ba usul ba bayaan ba maani ba maanaam lam cay soxla ci ay maanaa yépp na muy ñëwee ilzaamu ma laa yalzam ba mu ciy def nga xam te ne bu ko neexoon sax du ko def yooyu yëpp ni muy neexee ci ay waxam nga xam te ne adib bi nga xam da koy dégg te sax du du ab sénégalais sax nga xam ab naar la wala keneen la bu ko déggee day xam ne lii moom wax dëgg yàlla wax la ñoo xam te nii maanaam comme ni ko gan ñi ñëw ci magal gi seedee Euh, sudaani boobu ni mu ko seedee ci moom yooyu danga nga koy gis ci moom bu baax a baax a baax kon li nga bëgg mooy maanaam fexe ba maanaam euh, taqal yoonu morit fexe ba nit ñi jàpp ni suñ Tuubaa am na njuumte man nag ña ma yërëm mooy ña ngay woo ñuy jéem a xool njuumtey suñ Tuubaa intellectuel yi nga wax ni nañ leen woo ñu xool njuumtey mag ñi ci seen téere yi seen bind mi nañ leen xool euh, nañ nañ leen woo ñu xool maanaam seeni mbind ñoom mën caa critique man caa dolli mën caa wàññi banaan sax comme ni comme Cheikh Anta Diop ba tey ante ni yow da ngaa suufeel ñi ba wàccee leen ba tolloo leen ak Cheikh Anta Diop baax la maanaam nit la koo xam te ni borom xam la moom laa waaye aggut Sëñ Tuubaa ci awewu tànk aggut El Hadj Malick ci awewu tànk aggut sax Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam te ni doom la ci ñoom awewu tànk aggut sax seeni xalifa ci tànk nga taxaw ni nañ ko nañ ko jël tey tey ok nañ dem ci maanaam ci grammaire malay defi ci naxu nag ma génnel fenn foo xamante ni la commencé ci jaawartu jaar ci tasawadu siraar jëm ci masalikul jinaan jëm ci mawahibul quddus maa ngi lay defi Omar Diagne nga génnel ma ci benn fut boo xamante ni ci naxu la wala sax ci imla la wala sax ci bayaan la wala ci maani la ولا غاني صاح خاينا بات بي بو تانون باين بات موي غاني نيه بات بي لول لا بغي ياو ديفيلي تي اك ني ملني ياو دونت انا مريو خام كونفينكر غنين ما خاينا بوك غا نيوم اي كان با تخ مام لو واخ ني غونغا ماغي واني نييب نك ني جيم ما انديل بن بن بن بن بن فو با بو سيغ توبا ديف تي ناخو بودي جي فيق كوم نيما فا واخي وون سيغ توبا دا فا ترانسفيري خام خامو شريعه انديل نكو تي اي تيرم ما لا ما لا ما لا واخ تامن ني لا nga fexé ba لي كومونسيتي تزو الصغار بيني نيكي دا نتي فيق سيني توبا تاليفكم ولا التوحيد ولا ولا ولا تزو الصغار ولا جسم الصغار ولا تزو الشبان باتا ااا أه متن خليل بي خاني ويون نكو ما لي لا واخني لا انديل ما بن نجوم تي فيق بو سيني توبا ديف تي لول ولا غير ما بن نجوم فيق بو خامتني تي حياه يومي جابي مام سيني توبا ندن تي جور بي nga indi ma ci benn njumtu daani suñu tubaab li mu def fiq na nguu loolu laay ñaan nga indil ma ko tey loolu doo ko indi ma ko tey indil ma ko ci usul indil ma ko ci xawaayit fiqhiya indil ma ko ci maanaam ci mbooleem fànni xam-xam yi Sëñ Tuubaa bind maa ngi lay ñaan yow nga indil ma ci benn njuumte boo xam da nga dee xaw ni ma ah Sëñ Tuubaa juum na fii loolu laay ñaan indil ma ko doo ko indi doonte xam naa ni sax maanaam mënoo koo indi sa fit mayu la ko sa xam-xam mayu la ko sa dara mayu la ko amul lenn loo ko may mbir mi nak bu ngeen gisee ma ci ma ci wax du mbir moo xam te ni dafa simple ndax jéem dem ngir joom indi njuumte yi njuumte kilifa yu toll noonu nekkul loo xam te lu simple la lu rëy rëy rëy la moo tax maanaam ku mel ni li li nga wax tey dafa wuuteeg li ma ngi seede suñu bàcc bu nee na yaruuqu lahul maana kariqati lafsihi nee na suñ tubaab buy wax maanaam ndeysaan maanaam buy buy taalif maanaam mi day neex comme ni baatam neexee moom du jàkkaarloo na yow di wax nga xam doo bëgg ay waxam jeex nga xam Sëñ dafa nuru yonente bi ci lépp Abu Musa al-Ash'ari men damaa mos a ñëw di nuyu ko kon mu yonente bi ñëw di ma nuyu ma bàyyi ko mu kon ne di wax rek ndax kàddoom gu neex gi Sëñ Tuubaa noonu la meloon ak mag bu daa wax du bëgg ñu noppi bu daa wax bëgg ñu noppi mukk parce que baat bu neex bi suñu mbàkkee na ni baat bi neexee yaruqu lahul maana kariqati lafsihi nee na maanaam baat bi ni mu seewoon ak ni mu neexee manam buy bind limi bind non lay nexé maanaam yi noonu lay nexé lafz bi tamit non lay nexé lafzan wa manan day nex waye bu len wax tamit non la wax di nexé mom tey kon euh buñ magalé téméré at yi fi Sëñ touba jóge won ñu génn ci ay taalif yu bari suñ tubaa taalif génn ay téere yi xam-xam yu bari yu taalif génn lu bare bare bari téere yi xam-xam suñ tubaa yu bari ba commencé laa jaaxal ndax bu dëgg daan wax naan sept tonnes cinq cent yoo xam ne suñ tubaa taalif doo dëgg ay fen la nangam nangam yoo xam noonu léegi nag dem nga ba xam ne suñ tubaa taalif na lu bare bare bare bare bari léegi nag jàpp nga ni yow ci logique ngay doxee sa logique ngay doxee parce que ku taalif lu bari rek lu bari loolu mën naa am ay njuumte moo tax nga ni kon Cheikh Anta Diop taalif lu bari kon mën naa am ay njuumte waaye nangay dem di mën a génne si ay ay njuumte yaakaar naa am nañu la jiitu ñoo xam bu ñu gisoon njuumte Sëñ Tuubaa weer nañ ko bu yàgg ci àll bi mm-hmm. ñii di saaga Sëñ Tuubaa guddi ak bëccëg tey bu ñu gisoon ay njuumteem maanaam weer nañ ko bu yàgg ca ca mbedd ma waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin njuumte Sëñ Tuubaa moom ah du ma ne am na de waaye de du yow yaa koy génne moom yow Omar Diagne yow yaa koy génne mukk yow euh, euh, kon euh, li may wax nii maanaam mi sëriñ bi moo tax ma koy wax ma ñëwaat ci li wax sànq ci affaire naan xam-xam fi ñu war a toll ak bu ñu demee ba ba naan Sénégal diine Sénégal bokkut ak diine faneen kon problème am na déedéet problème amut de problème amut ndax bu ñu nee diine Sénégal bokkut ak diine faneen jubluwuñ ci ni maanaam diine ji moo bokkut ah kay Sénégal ni ñuy jullee noonu la màkk di jullee ni ñuy woore noonu la màkk di woore ni natte asaka noonu la waa Màkka di natte asaka ni gëme yàlla ni kenn la noonu la waa Màkka gëme yàlla ni kenn la noonu la ko waa Chine julliti Chine noonu lañ ko gëmee julliti Hong Kong noonu lañ ko gëmee julliti Amérique noonu lañ ko gëmee déedéet diine Sénégal yi diine fépp ñoo bokk waaye nag maam li jaral li li jaral suñ Tuubaa ci misaal li li li suñ li suñ Tuubaa li ko xeexal lislaam jaral lañ la bëgg a wax ni la ñun taalibe yi gëm ni amul kenn koo xamante nii ci bitim réew suñ Tuubaa jaral na ko mu jaral jaral na ko jaral na ko kooka lim jaral suñ Tuubaa joxe boppam dami wa ahli wa awlaadi fidaau lahu maam dem ba joxe deretam joxe ak njabootam joxe ak ay doomam xusuuri xalat wal ahlu an ni tafarraqat li madaxi alladi anhu madihu qasiru maam dem ba maam nee na samay pale ak samay kër pare li mu ciy jublu mooy maam daa jàpp fa ëpp téere nekk pare la war a tudd waaye moom ay sàkkit la amoon sax ndeysaan waaye téere ya fa nekk moo tax du ko tudde ay kër waaye ay pare la ko tudde woon samay pare sax dem nañ ba tas ko tas sama njaboot lépp ngir yéen a demee loolu lañ la bëgg wax ne diine Sénégal amul fareen kon bu bu nee boo boo nee buñ nee diine Sénégal bu tudd diine feneen problème am na déedéet problème problème am na ci yow xam naa eh, jàpp ni moom xëy na ñu bëree ngi mën wax sanaa ma jërut tontu ndax a wérut psychologiquement wérut moo gën a wér dara jotu ko na mën naa xam naa am nag mu jël cardinal mën naa mu mu jël ay doom mën naa mu wéra di ndaxte am na wax yoo xam tamit ku wérut moo koy wax xëy na fii biir Sénégal waaye léegi nag damaa xamul pas-pas yi pas-pas yi luy problème pas-pas yi léegi ba tax ku mel nit mën a ñëwee taxaw attaqué Serigne Touba dañuy di xoolee waaye nag xëy na wa laa laaw mu ne xitaan rek moo ci am kon daal damay jàpp ni maanaam euh, critiquer Sëñ Tuubaa ci xam-xam moom moo xam xam bu mën a doon moom yaakaar naa bu fekkoon day am ñëpp jiitu Sëñ Tuubaa boo xam sax moom bañut critique wax naa ko sànq nee naa moom ku ñemee critique la parce que bu mu jógee la ni nee nañ damaa dof koo xam daal di déclaré daal ni man kat nee nañ damaa dof man waaye mu indi ay preuve yu wane ne dofut indi ay preuve yu wane ne doyadiwut safiya mm-hmm. safiya mooy koo xam ne dafa wóyoo maam nit di mo indi preuve yëpp léral ko ñëpp ba àddina sëpp wuyu si ko ba bam fi waxuma la bam fi nek waaye ba mu fi joge lay ma téméré at nga xam nga kon Sëñ tuba bim ñëw jëmono lay mën na téeméeri at ak juróom-ñaar fuk ak ñaar téméré at ak juróom-ñaar fuk ak ñaar mëno génne benn njuumte ci mom ci ay waxam mëno joom génne benn njuumte ci mom ci ay jëfam mëno génne benn njuumte ci mom ci nim doon yare manam waxuma Sëñ tuba kàngam yi nga xam ne ñoom la doon yar rek bu doon buñ juumon bu juumoon ci xam-xam ñu la juum la tax mooy la tax mooy ñoom ñëpp dañoo dem ba àgg ci yàlla waaye ba ñu ci yàlla nag gis ne suñ Tuubaa mii kat du seen morom moy ngeen gën a ci yàlla ñu wëlbati ñom ñëpp muy sama mam ak maami keneen ak keneen ñu wëlbati jox seen bop seigne touba jox gog ñu jox seen bop nak joxuñ ko ko ci ay tiaxan wala joxuñ ko ci ab complot wala ñu jox ko ci ab àndandoo wala yama ma neex déedéet dañ ko jox ngir yàlla moko jital def ko qutbu zaman def ko khawsul wara nak suñu ba wax ne huwa al ghaws wal miqyas rabba qulubana wa ajsaadana fal kullu saafin wa naaimu suñ tubaab mooy xawsu bi mooy mérias bi mooy ki nga xam ne mooy xettali waaye mooy ki nga xam ci bis bi mérias la mën naa xettali doon junni junni ak million ci benn bis bi xawsu mooy kuy xettali par kenn waaye mérias mooy koo xam ne day xettali ci bis bi lu ëpp euh, maam xel nee na nag moo yar suñuy xol ak suñu yaram ba ñun ñëpp ñu nooy nepp sell sell set wicc suñu tubaab loolu la fi defoon kon kon nag boo nee war yoo jël am mbindam gaaral ko ngir mën koo critiquer ngir mën koo génnewaat maam xool njuumte yi ci nekk yaakaar naa loolu moom fen gënu koo kawe fen nag waxoon nañ ni ñu moo gën a garaaw ci bàkkaar yépp ndax yonent bi aysaan bi ñu ko laaj waxoon ne ab jullit du fen mën naa sàcc mën naa njaaloo mën naa nag waaye fen moom ab ko def koo xam saa yoo waxee rawatina bu jëmee ci mag ñi rawatina bu jëmee ci ku baax Seexul Xadiim rek la anhu ay kàcc nga koy mottale kooku war ngaa xoolal sa diine bu baax a baax a baax war ngaa bu baax a baax a baax ah, من خادم بوسري امنا يقين والله الذي لا اله غيره والله الذي نفسي بيده سنتوبا توبا ما خمون سن توبا ما خمتي مام استور سهلاي واخ سن توبا ما ديغي مام استور سن توبا ما جانغي مام استور سن توبا ما جانغي تي ام بنم استور خمنا ني دوكوي جوم تي ام بنت لولا سما غيرني درو دوما ادم اخا كاي وايي بو فكي جاب ناني كو جوم indil ma njum te yim njum am ni ko doon jéem def di ko indi ci ci ci ci ci ay ci ay bax baxa ak yu mel non waye xana bañ ko bañ leen leeralee qasida ga amna baat yo xam ci bis boobu nga xam baat yo indi baat arab la do xam fan la seigne touba xamé sax far moy seul ko xam tane ni jàng na baraw ay serignam jàng na baraw ay serignam ab serignam taxaw d'accord ci lool muy xaw ma jaxate kala dem na ba seede ni sama sëriñ nga woon waaye léegi yaay sama taalibe nga woon waaye léegi maay sa taalibe yaay sama sëriñ yaa ma ëpp xam-xam foofu lay kon dama bëgg kon ñu xam ni yii muy wax ni yëpp ay may sperme yi muy wax ak ay buñ nee ba ca ba ca plan ba ca ba ca planète sànkam fu penku ba féeteeg yooyu xamul ni comme ni ma waxee woon ay borom xam xam boo xamee xale yi ñoo ciy wax wax nañ ci bu yàgg yàgg yàgg ay single maadaal كنيو نابغا أم دوم تا أم أم جكر يب روح واتن تبو يعج ما دا جي دوجان نم رام جام سنغال يو بس أجنوم كاي دو بس لو بروح واتن تبو يعج لا واتن تبو تالي تي أي تيري بوري تيري من الجرا هذا تبي يشيا ما نبغاش يمكن دي تالي كو نجي فيك يو بري بري بري بري بري بري الأحكام السياسية الأحكام السياحية بو تدي من يوم كمالي واتن تبو من ميسان واتن سبتيز تي أي تي تي أحكام المسافرين يو يب واتن تي أي جاي إسبرم أي ما إسبرم بروح واتن تبو يعج يعج ما بخير لي تام مرة bu ko mbokk yi sàkkoo daañu defal waxtaan mu gën a yaatu ci loolu waaye daal li ma bëgg daal ñu xam ko mooy euh, lii mu wax mbir la moo xam te nii xëy na da ko wax ni ñu jàpp ni du lu simple lu simple la waaye lu rëy rëy ndax li tax muy lu rëy mooy temps bi mu ko waxee ak jamono ji mu ko waxee ak tamit fi mu ko waxee fi mu ko waxee mooy fan mooy dafa waxoon ay wax tey mu am jëf jëm jëf ci leetar boobu loolu du tem bi bi mu jëfee jëm ci nit ñi génnee wax jëm waxoon bi yàgg-yàgg mu ñëw waat ko لي سينو سين دال موم قابل قابل مكتوباته قابل للتصحيح قابل للنقد مام سينو سين لي مبند دنجكو ورا مام نونغونا مام وريس نكو بوك وريس نكو نقد وريس نكو كريتيكي وريس نكو خولات وريس نكو ويرلات وريس نكو مانام جانغتا خول نجوم دي في جوم ني نيكو ndax neena ay nit lañ ci kenn ku nit nit nit day jom man de wax deug yalla duma wax ni seigne touba bi yonent la ndax mom neena do bi yonent duma wax ni seigne touba jinne la ndax mom du ab jinne ne man abdullahi wa khadim rasulihi la jaamu yalla ak liggey kat yonente ba sallallahu alaihi wa sallam ginaaw loolu la ma jangal nak duma wax leen mukk waye day li ma lay xamal dal moy dama bëgg man defi bi lay jox moy nga ni ma ah khadim busa sa serigne bi di seigne touba kat fi la jom nga te ci tombu ñu leral ko ñu waxtaan ci xam xam bo may tontu na nga fexe ba nag ma tontu ni ma seigne touba li tax may nañ xolaat am bindam fi la jom lool rek la solo cay wax juum na ci naxu wala juum na ci fiqh wala juum na ci usul wala juum na ci bayan wala juum na ci mantakh wala juum na ci nangam ak nangam waxuma la seigne touba waye ma am talib seigne touba kep bu mu jàngal rek seigne mbàkke bu so kep rek boo ma indilee ni ma la juumee rek ma ma joxale ma yor lépp bañ demee màkka ay borom xam yu nek ñom na ba xaar ay bo xam mag yu fa nek ci himul falak ba seigne fall ane seigne suñu bu so laj seigne suñu bu so lu bëree bëree ci xam-xam waye dafa mujj yay len ci ndax sëñ Tuuba ab xam-xamam ak mbindam te lawxul mahfuus lay jóge te lawxul mahfuus lay jóge te loolu moo waxee du waxi daanu kat la tax mooy am na ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ daan dégg xalima suñu borom soxna buy bind ci lawxul mahfuus mbind yi jóge lawxul mahfuus nag moom xawma ku cay génne mala ku cay génne ñoom ne waaye doon Omar Diagne moom Omar Diagne mii du ko doon mucc ci àddina kol mootu bi xëy sikum nag foofu laay jeexale boyo ba nga xam ne moom sa sa mer ak sa bañ sëñ Tuuba da nga ciy dee ba faaw rek ci ngay dund waaye ci ngay dee tamit waaw ci ngay dund waaye ci ngay dee waaye suñ moom day gën di avancé rek màggal gi ak téeméeri at di suñ tubaa am ci biir suuf ñu génne am bindam génne am njàngaleem génne lépp penkook saw di jariñu ci moom màggal gi ñëw naar yi ñëw taggal ñu suñ tubaa far naar yi ngeen doon wax yéen naar yi ñëw taggal ñu suñ tubaa di wax ci moom loo xam ne monsieur Suko monsieur Suko dégg ñun ñun ñun tali bi sax xamuñ ko ñun nit ñu ñuul yi ah loola moo la metti ba tax nga def sa sortie di génn ak di wax waye wa in udna so del se ñu delsi waat rek inshallah allah fi mu ne moom dañoo dañoo fas yéene waat duggaat ci mbir mi nak sa yo ñewate wala ku melni yo ñewat ñëwaat dinañ ñëwaat incha waxaat ak yow yamay la nga lem sab geen toog ci ta xamni suñ mag ñi duñ sa morom tayit bokkuñ ak yow len kon dal euh defina la ci xam-xam dama bëgg nga indil ma fi sëñ Touba juume wax naa ko ay yoon yoon yoon talibi yi lay défendre tamit te ni talibi yi Touba lañ ñoom dama bëgg ñu jàppale la dem comme xeyna ñoo la gëna xam bindum Sëñ touba ñu dem indi la kaggu yëpp dem daaree kamil dem génne la lépp xanaa xëy na doo mën do ñu do ñu ñëw touba waye ñi la top ki xam ne ay taalibe la yal ak ñi nootul ci mbir mi tay te do dem démb nootuñu won ma ngi leen di wax nañ dem daaree kamil buñ né suñu Mustafaa dina leen ubil suñu Mustafaa joxe dina leen ubil mbañ ñëw géré mbañ dem ndam mbañ dem darul muqti mbañ dem fem fuñ dem ci kaggu Sëñ touba ñu ubil leen ñu génne Sëñ touba yëpp té ko ci saal bi ñu ñëw ñu yenn ci suba ngoon man na yor dépense bi ñu toog xool ñu génnee ni Sëñ Tuubaa kat fii ak fii kat mënoon naa wax lii waxuma waxuma dafa juum de waaye baat bii kat moo naa indi bu ko gën neex ahbabtu rabbal alamin kat moo naa ahbabtu ahbabtu ilaha alamin wala ilaha llahi ilaha naas yi bii moo neex loolu képp rek nga xam ne loolu boo doon jumti sax waaye ñaan nga indi ni baat bii kat bu dëkkoon fii la gën loolu sax doo mën indi Sëñ Tuubaa mukk ci àddina doo mën indi mukk Sëñ Tuubaa la yàlla waxoon ne qul la in jama'atil insu wal jinnu alaa ya'tuun jinne nit buñ dajaloo ngir indi alquran lu mel ne alquran duñ ko indi waaye nit ak jinne ak say maam yow xam naa sax xëy na dangaa amuti maam moo tax ngay wax ni ngay wax waaye boo fekkee am ngay maam say maam sax buñ tiimoon mbindum suñ Tuubaa maam dañuy wëlbal nekk taalibe suñ Tuubaa wallahi la ilaha xayruhu ndax ñu mel ni say maam ñëw nañ suñ Tuubaa ngir critiqué ko bañ nee ne ñoom ñu topp ko seen i mbokk ni ak njabar la yor ñu ñëw xool gis ñoom it ñëw toppaat ko xam ne ak njabar ni ko fayee ni yàllaa fi nekk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bëgguma sori ci wax ji eh, di ci indi ay eh, kii bëgguma <laughs> bëgguma fee nekk di daara wala dara waaye li ma bëgg wax daal mooy yow moom ku ne war a critiquer Sëñ Tuubaa ba mu des war a critiquer Sëñ Tuubaa ba mu des yow ndax du xam-xam moo la koy may du ay teggin moo la koy may du ab juddu sax moo la koy may loolu sax bëgguma ñu naa waaye naa ci àgg tey ab judd sax mayu la ko place ci société bi sax mayu la ko lenn loo ko may amut kon demal ni toog boo bëggee jàng nga jàng boo bëggee ñu leeral la téere Sëriñ Tuubaa ñu leeral la ko te nga toog jàpp sa bu fekkee bëggoo ci ko yow yaa ko leeral yow yaa ni Sëriñ Tuubaa sa référence yaa ni yow gëmoo Sëriñ Tuubaa bañ nee la da ngay toog Sëriñ Muntaxa nga yaa ko wax sa bopp daan du ma toog moom ndax man gëmuma gëmuma leen gëmuma yooyu ginnaaw gëmoo ko maanul ci moom ginnaaw gëmoo ko ci moom bëgguñu nga tagg ko bëgguñu niñ bañee nga xas ko noonu lañ bañee nga tagg ko tamit soxla wuñu tagg ci yow Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa fañ koy taggee say maam mënuñ fa àgg Sëriñ Tuubaa nañ koy taggee ci lawhul mahfuus إذا كتبت إذا كتبت اهتز عرش الباقي سو بندي صح عرش زي ينقطو سو بندي تاجي يعني عرش زي ينقطو لول خلنا نقول صح وهم لسه الشريعة واي خلنا نقول نيجي الشريعة نا عرش مهم نفا نك نيب lu neex yàlla képp lañ bëgg suñu am bind mu neex yàlla ginnaaw nit day faatu sa képp kaw suuf aras yëngatu saxdu bi mu faatoo aras ba yëngatu kon bu ñu waxee lu neex yonent bi enseigne moo moo moo gën ñëpp aras mën naa yëngatu kon suñ yàlla malaaka yi yi nga xam ne bu suñ tubaa bindee aras di yëngal ngir malaaka yi da ngay da ngay kontaan di bëgg bëgg bëgg ca mbëgg ma suñu borom bëgg kooku mbind moom yaakaar naa bu fekkoon la ñuy corrigé la Omar mi nga xam te mënut a fii mënu ko corrigé boobaa kañ la ko corrigé kurul moom kon wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi